dañu dajale fii ci hôtel King Fahd salle bu ñu loué tous les leaders de la coalition benn bokkaar Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fi benn Bokk Yaakaar ñëpp ngi fi ak itam les 184 commissaires politiques de benn Bokk Yaakaar yi nga xam ne président désigné na leen ñu waxtaan ceeg moom 4 pour chaque département 4 commissaires politiques de Benno Bokk Yaakaar pour les 46 départements mooy 184 yooyu fekk si nañ fi tous les leaders tey lu bu tuuti li ñu ngi nekkoon 400 ou 450 individualités pour waxtaan waxtaan wi nag Benno Bokk Yaakaar njobootu président Macky Sall la njobootu président Macky la muy njiit bi mooy président coalition bi coalition bi amul sax vice président y a un président ñëpp ànd nekk ci gannaaw waxtaan nañ fii ay wax képp ku bëgg a jël kàddu gi jox nañ la ko ba ñaar ba ba 32 orateurs intervenir ku ci nekk la nga proposé ñu bind ko doonul coalition bi nag conférence bi mooy jël décision yi ay proposition la 28 def nañ ko bu neexee yàlla balaa minuit tey danaa ko tekki loxo président Macky proposition nag moom moo koy def décision c'est ça la démocratie ndax njiit njiit la bu ko gisee nag ba décider ko après ñu mën ko publier ma yëgal leen ne président Macky Sall ak coalition benn bokk yaakaar yi fi nekk ñëpp jàmm rek lañ bugg pour réew mi jàmm lañ bëgg ci réew pour ci mi tey lañu bëgg ci réew mi joxante loxo d'accord kii ne ne nii kii ne ne ne mais du tey ñu ànd le 31 juillet bu ñu wotee sénégal yi ñuy wax ñii gagné ñi gagnéwul ñi gagné léegi ñi gagné amul benn coalition bu mën a gagné Sénégal gii cent 165 députés amul mënul am yoon wi sax lu mayu ko raw gàddu bi ci quarante six département yi la mais ku ci nekk am sa liste ñu valider ko la nga am ci nombre de voix par rapport au nombre de voix reçues au niveau national proportion boobu ngay am sur la liste nationale des cinquante trois députés donc ku ci nekk dara am poids mënoo ñàkk mais ku ci am poids la l' ensemble des suffrages boo ci amee cinq pour cent am nga cinq pour cent c'est 53 députés de la liste proportionnelle boo totalisé bu bu nga am ci sur les 557 communes du Sénégal nga am 12 pour cent 12 pour cent 53 yàq moom kenn mënu la ko xaj ba ñàkk lépp mënul am gagné lépp mënul am du loolu mooy démocratie léegi nag point de presse bi ñuy def ak yéen te li ñuy def tey nous sommes prêts à le faire demain après demain après après demain du tey rek de. du mobilisation du remobilisation c'est la permanence dans l'engagement avec méthode sens de l'organisation sérénité élévation apaisement pour defar yàq taxu ñu jóg benn yoon léegi nag nii la point de presse bi doxalee noonu lañ ko décidé ci seen gannaaw ñi participer ci réunion bi yëpp ñu ngi seen gannaaw madame le premier ministre Aminata Touré moom le président Macky Sall tànn def ko ci bopp liste nationale pour élection yi bon moom mii dafay wax ak yéen bu ngeen amee question ngeen posé ko parce que affaire élection lañ jëm ak ñaari kilifa yi nga xam ne ku ci nekk yaa ngi yore institution muy ajaratu Aminata Mbengue njaay ak Alaaji Idrissa Seck ñooñu bu ñu jëlee kàddu fa ngeen posé leen question yu tontu leen waaye maa ngi leen di ñaan jàpp leen ne ñun jàmm rek la ñuy wut jàmm rek lañu ñu bëgg ndax réew mi ñoo tànn Macky Sall jiital ko ci li ko yàlla buggee ndax yàlla rek mooy joxe pouvoir yàlla moo koy jël yàlla moo koy yëgal yàlla moo koy wàccee alxuraan la bible wax na ko c'est jëkki qui donne le comme jox na ko Macky Sall nag ñi nga xam ne ñoo moom a nekk ak moom ñu ngi jóg pour wuuti lu leen lu leen xar seen tànk tubéy pour ñu gañe yàlla mooy décider la muy décider.